salaamaaleykum euh, suñu mbokk journaliste yi ak euh, militant mouvance présidentielle yi ñu fekk di en privé ñu ci biti ñu may ñu tuuti comme ça nous avons fait dal ak calme s'il vous plaît s'il vous plaît C'est bon C'est bon Paragène? OK salaamaaleykum wa rahmatullah mbokku Sénégal mbokku Ndakaaru particulièrement ak sénégalais yi nekk ci diaspora bi yépp tey ñu ñoo sàpp woon ñëw toog wax ak yéen mu doon man kaantey mu mënoon a doon keneen

mooy fexe am dëkk bu dal dëkk bu am jàmm dëkk bu am yoon dëkk bu nit ñi mën a dem doxi seeni soxla dëkk bu nit ñi mën a toog ak seen xel bu dal toppatoo seen njaboot waaye umpul kenn ci ñaari fan yi ñu weesu li am ci dëkk bi du dëgg du yoon am na ci ay barab yoo xam ni nit ñi génnatuñu am na ci ñoo xam ni mënatuñoo ubbi seen commerce am na ci ñoo xam ni mënatuñoo jàngi école waaye am na ñoo xam ni mënatuñu sax dem faju loolu nag li ko sabab lañ bëgg a waxtaane tey jii nii li ko sabab lañ bëgg a leeral ci askanu senegaal waaye nag di njëkke ginnaaw masawu bi di jaale ñi nga xam ni dañoo am woy jur bu ci génn àdduna dañoo am rakk mag walla xarit bu ci génn àdduna cam am ci ñoo xam ni ci seen liggéey lañu ñàkke seen bakkan muy ay policier ay fonctionnaires ak ñoo xam ni ci biir manifestation yi la ñàkk seen bakkan dama bëgg ñu leeral ni que lii am nii yépp du benn sabab am na ñu naan dañoo condamné diw moo tax du loolu rek de du loolu rek loolu kay dafa ubbi bunt nous xam ni ñu bari ñu amoon yéene ci réew ñu bari ñu faire sabab choses. nous nous ci la jaar ba fitna ci yenn gox yi firnde manifestation commencé na am ba résistance ak ay politique yooyu yëpp tey gis ngeen ni ñi doon wax yooyu yëpp daw nañ làqu ci amul benn responsable politique bu bokkoon ci ñiy wax naan nañ leen yëngal réew mi nañ leen taal réew mi bu toog këram amu ci kenn ku ngeen mën ñeme gis yéen ñoom ñëpp daw nañ ndaxte nag dañoo jéem a yee fitna ba leneen dugg ci leneen dugg ci leneen dugg ci may woo askanu Sénégal di leen wax lii di am nii xaw ndax télé bi pare na wala wul manifestation yi di am ñun ñëpp gis nañ ay bakkan yu ci rot am ñenn ñu ko jël diko jiñ force de défense et de sécurité yi waye ñun ñëpp xam nañ ni que du yeen yeen ko filmer du ñun ñoko ko filmer waaye ay sénégalais yu observé ci manifestation yi ñoo filmer ay nit yu yor ngànnaay nek ci biir euh, manifestation yi di tirer. état bi nag mi ngi def liggéeyam dina def li ko ci war waaye ñi sabab loolu jóguñu ci lu dul am yéene ak mbébét di wax ni que ay manifestation mi ngi am Sénégal ay bakkan mi ngi ciy rot ca force de défense et de sécurité yi ñoo leen di faat tey ñun ñi ñëpp mu leer ñu wóor ñu ni que ay nit lañu dugal ci biir manifestation yi pour ñuy tiire ay bal

ci ni Sénégal bagn fi gaz ak pétrole ba léegi changé catégorie umpul kenn ni que amna ay liggéeyukaay yu am doole ci aduna bi lo man mi duma len ko wax ni na pétrole ak gazu réew amuñu ko ñooñu taxaw di xaar kenn ni am 40 ans de rébellion ay nit di fexé xaaj réwmi pour ni que dañuy laaj indépendance ñen fukki at ay djégo yu bari am ci ak président Abdou Diouf ay djégo yu bari am ci ak président Abdoulaye Wade ay djégo yu bari am ci ak président Macky Sall ba tey yàlla suturaal ñu mu am ci ñenn ño xamni ni signé nañ pour wër ngànnaay yi ñu signé nag pour wër seeni ngànnaay amna ñeneen ñu d'accordul pour signer seen i ngànnaay pour wéer seen i ngànnaay ñooñu tey la ay nit ubbil porox pour ñu ñëw yee fitna ci réew mi yëpp particulièrement fii ci Dakar loolu moo waral bu image yi paree ngeen xool jarul ma leen koy wan yéen ñëpp am ngeen ko gis ngeen ci biir ay manifestation manifestant génn pistolet tiré gis ngeen ci ay manifestation ci autoroute bi ko koo xam sénégalais moko ko filmé yoru arme d'assaut di daw ci autoroute bi dégg ngeen ci manifestation yi ay site internet bind démb ni ko jam ñaajo alkaati lañ door balu fital mu génn àdduna kon ndoxalin bi ak yorunu situation bi mënatul bokk ak situation boo xam ni dañuy jàpp ni ko ay manifestation politique rek la ku jàpp nag ni que njiitu Pastef biñ condamné moo tax lii lépp am fi nax nga sa bopp deful lu dul ubbil porox ndoll ñi bëggoon a yàq réew mi ñu jaar fa mu am ci responsabilité bu mag nag parce que jàpp naa ni mënoo nekk ci réew yow ak ñi nga àndal ni danga nga yee fitna mënoo nekk ci réew yow ak ñi nga àndal ni yoon du dal sa kaw mënoo nekk ci réew bula la wowe ngani nga ni demuma bu yon àttee ngani ni complot la loolu defe naa amul ben sénégalais bu ko war je lance un appel à la jeunesse de ce pays fi réew mi toll ak bunt yi ñu ubbi mu am ño xamni dañu am sabab ak yéene ci réew mi bu outé ak ñun réew mi ñu bëgg bu outé ak ñun rew bi ñi liggéey bu outé ak ñun rew mi ñi dundu jot na képp kuy sénégalais nga jóg taxaw ay nit yu armé dugg nañ ay yeneen nit yeneen sénégalais yu dëkk ci ay quartier hébergé ay nit yoo xam ni dégguñu sax olof gendarmerie ak police ñi ñu jàpp ñëpp ñi ci ëpp duñ ay sénégalais wala ñi ci ëpp dëkkuñu ci gox yi ñu nekk wala dégguñu sax làkk bi ñuy wax defe naa nag boo demee ba egg ci foofu na Sénégalais bu nekk jël responsabilité état bi dina jël ñoo ñu yor ngànnaay réew mi am na jumtukaay te police ak gendarmerie ñi ngi def liggéeyam mu des ñun sénégalais yi ñi nga xam ne yéen yéen a ëpp ca dëkk ci seen kër lii di am neexu leen ngeen di dund ak ragal ak ak tiit parce que ku nekk am na ci njaboot ca ñemewu leen a wax ñemewu leen a jëf parce que am na benn nit bu taxaw yor Facebook am ku wax mu saaga ñooñu ñooy ennemi déclaré wu Sénégal ñiy wax naan àq ak yelleefu nit ñi sàmmuñu ko fii ci Sénégal ñooñu ñooy ennemi déclaré wu stabilité Sénégal ñooñu ñooy ennemi déclaré naataange Sénégal ñooñu ñooy ennemi déclaré Sénégal bi jëm kanam. yéen ndaw réew mi na ku nek jël responsabilité ñu commencé ko ci quartier par quartier police dina lijjanti yoonu demi armée bi dina sam infrastructure réew mi gendarmerie dina ñew top, ñuko wara def mais kuñ ci dàq ci koñ ngay dugg et ku ci yeewu ci kër ngay fanaan na quartier bu nek jël responsabilité La commune bu nek jël responsabilité

ci bari parce que dañoo xamul bari na wax parce que dañoo bëggul dëgg bari na parce que dañoo bëgg réew mi nekk instabilité parce que am nañu que bu réew mi nekkee ci instabilité ñoom jël parti société civile koo xam ni bu procès amee nga ni nañ ko discuter bu beneen sénégalais amee problème nga ni na yoon jaar ci kawam koo xam ni yow li nga bëgg exemple bi ngay jël Magistrat, magistrats yi am nañ syndicat Mali Magistrat, yi am nañ syndicat Burkina Magistrat, yi am nañ syndicat euh, euh, Guinée mais ñun bëgguñu suñ dëkk mel comme dëkk yooyu kuy woote loolu mooy bëggoo réew mi ñooñu c'est des ennemis déclarés na sénégalais yépp xam ni que ñooñu ñoo bëgg a taal réew mi ca dañuy wax ci kaw di wax ci suuf ñoom ñépp seeni soxla bopp moo leen téye biñ fiy wax waxi góor jigéen yi ñoom ñoo leen di jàppale tey ñoom ñooy taxaw naan àq ak yelleef yi buñ fiy wax waxi njub ak maandu ak diine ñoom ñoo koy xeex di fi indi ay droit tey ñom ñoy wax pour parce que japp nañ ni que yoon doxul ci kenn ko xamni ni miser won ci mom lool moy bi bi ci procès bi dem ni dañ ko sakku ci lu mu porte plainte tribunal Le procureur bi mobile bind charge bi juge d'instruction moo def instruction bi attekat bi